waxtaan ak moom ci mu nettali leen mbir mi nan la demee bi mu leen ko nettalee nag traduire nañ ko ci ñetti langue mooy langue française ak lugatul arabia ak langue wolof bi nga xam ne dañ koy boole def ko mémorandum yëppal ko kii nga xam ne moo fi nekkal buur moo fi nekkal buur te jéeyi ji amee ci seen i loxo dañ nangu ko ci suñu kanam kilifa loolu duñ ci dikkaat loolu ñoom ak suñuy kilifa lañ waaye lii mooy mémorandum bi nga xam ne wëllëre yi bokk yi ak jaboot gi sëriñ Basiiru jaboote dañoo bëgg woo fii mboolem taskati xibaar yi wax ak ñoom ci kanamu kilifa yii leeral leen rek amul ñaari wax yenn wax la muy leeral leen rek kàddu sëñ Basiiru bu ko mënoon dum ne nii ma ngi ca lalu tëdd moo soxna Sooda woy juróom wu jigéen di doomi sëriñ Muntaxa ñu kon amul capacité ñëw fii taxaw waaye bu ko mënoon moo koy def ba mu ñu dëkkalee kàddu yii nag signeel ko boppam moo tax ñu ñëw fii ngir dëgmal ko presse bi buñ noppee danañ leen ko jox danañ leen ko jox danañ ko jébbalit autorité bi bu ko defee la ca war moom ñoom seen digg seen i kilifa lañ waaye lii moo ñu ci ñur mooy fu ko waaye déggee du mooma dal jiitu sax mooma yi bu ko defee ñu xam ne ak jaawatle moo ci am waaye Cheikh Amadou Bassir dañoo jaawale këram jaawalewu turam bu ñu wax Bassirou Touré lañ doon seet jëli Bassirou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 diggante boobu ñoom nañ jàppe woon bàyyiwuñ ki yaa ngi téye manote waaye ki yaa ngi loxo ndey bi ki ki téye woon loxo càmmoñ mooy manote ñoom ñaari ñëpp téye loxo yi di manote kenn ki téye kuu bi ba tey kenn ki jàpp ci awraam boobu la mujjee xam ci moom dara mu mu mu kiris bi mu xamee nee daal dafa jekki-jekki moom gis boppam ci mbedd mi ñu yeew ko xamatul lu xew sëñ si Abdou Latif mi nga xam ne duñ ci duñ ci dugg duñ dugg duggeen waaye version bi rek la ñuy nettali moo nu yilif jaboote bi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 kon dañ koo jaawale ñoo ngi jéggul loolu nag amatu jox tontu moom ay kilifa ma ci amul tontu nuñ ca doxee rek amu amu ca lenn lu ko ca neex mu ko ca naqari moom dafa jaay boppam dafa dafa Sëñ Tuubaa rek a koy amul amulu bëgg amulu bañ ak njabootam rek ñoo amul bëgg bëgg gi mooy ñu laabe honneur xam ne ak njuumte am na jaawale am na sëñ Bas mañ xamoon moom lañ xam tey